référendum bi ñaar rekk lañu def mooy danga naan waaw muy wey mbaa nga ne déet muy noo amul ñetteel ma bëgg a wax lu leer ne man ak képp ku ma déggal ci commune bi ak ci biir réew mi dangay wax noo ci référendum bii di ñëw sama boobu nag te ma nar koo àndal ak képp ku ànd ak man nekkul non boo xam ne dama ko jëlee ci sama bànneexu bakkan waxuma non parce que dama contre président Macky Sall waxuma noo parce que dama ànd ak opposition bi dama wax noo parce que dama am conviction ne kuy jullit ak ku bëgg réew mi danga nga war a wax non fukki fukki tomb ak juróom le président Sall indi ne nañu def nañu ko waxal waaw nañu joxe xalaat foofu nag am naa ci lu ma jaaxal jàpp naa ne nit lii laa bëgg nit ñi lu ciy seen xalaat warul a jar ci président de la république mu mobiliser état bi yépp ak moyen état bi dem di campagne parce que luy sa xalaat moom buñ la ci dee joxub neexal man dama jàpp ne am na lu nekk ca biir te loolu laa gis mu jaaxal ma ci li ma xam ci àdduna bi ak li ma xam ci biir réew mi mësuma gis référendum bu xam ne président de la république ba day mobiliser état bi ñu génn capital ba dem di dem di campagne président Senghor organisé na référendum 1963 président Abdoulaye wadd organisé na référendum 2001 président Sall mu ngi organisé référendum 20 mars 2016 waaye nii ma gise moom mësuma ko gis mësuma ko dégg ana lu tax may wax la déedéet article 4 te mooy tombu ñeenteel bi te ñu def ci reconnaissance te nouveaux droit au citoyens léegi bu fekkee ne ñoom dañu wax ne nouveaux droit yooyu li ñu ci jublu mooy askan wi am moomeel gu yees ci wàllu suuf si man damay jàpp ne bu fekkee li ma dégg pouvoir bi wax pouvoir bi dañoo bëgg indilaat li ñuy tudde laman te nun ñii di ay baykat xam nañ ne laman moomu xeetu laman googu moo taxoon nit ñi di dee fii bu tawee di xeex di reyante bëgg reyante boobu jeex moo tax ñu indiloon na domaine national ba nu nekk ci jàmm aujourd'hui ñu bëgg noo delloowaat ginnaaw ay ay ay xarnu xeex ba tàmbaliwaat walla boog am na lu ñu nëbb ci biir moo di nar nañu indi ay boroomi doole ak boroomi kàttan yu yor koom-koom ñu jël suñu suuf ci nun ëllëg ki si biir lu feeñ ci suuf soosoog lu ci nekk ñu ne suuf yooyu ñoom ñoo ko moom ndax dañ ci am droit bu fekkee loolu la te loolu la pouvoir bi li pouvoir bi wax loolu la niru ne moom la ñuy lay bu boobaa man dama naan déedéet ku ma àndal danaan déedéet ndax du jur jàmm opposition bi dañuy wax ne ñoom ci tomb ñeenteel boobu dañ caa nëbb ay yëf yeneen yu ñu feeñul ñoom ña nga ciy tudd mbirum borom ñaari tur yi ak yeneen man dugguma ci loolu li ma yàlla bind mooy lu ma leer naññ lay wax lu ma leerul duma ca dugg waaye ci tombub fukkeel ak juróom bu ñu ca demee njiitu réew mi daf caa def ne dafay saxal ba abadan daa iman dappet ay tomb yi muy bëgg a wax mooy ni ñuy tànne njiitu réew ak njiitu réew mi ni mu fiy desee ak diir bi mu fiy des mandat yi ak nombre de mandat yi su fekkee juumuma te man ci daara ji laa jóge waaye daa mel ni la ma gis ñu bind ko ca tubaab dañ caa bind intangibilité des dispositions relatives au mode des élections au mode d'élection à la durée et au nombre de mandats consécutifs du président de la République gis nga loolu lislaam ji ma jàng bi ma amee juróom benni at ak léegi lislaam day tere lu mel noonu lu tax droit bi nga xam ne moom la président Senghor am ba tegoon fii ab constitution nu def référendum droit boobu Abdoulaye wadd am ko droit boobu Macky sàll mii juddu ginnaaw indépendance am ko tey moom la moom la taxaw temm ngir xañ ko sunuy sët ak sunuy doom yey ñëw ëllëg te intangibilité bu amee mooy lii may tëral ba faw deesatu ko dindi noonu lañ koy bàyyi lislaam nag dafa digle maandu te maandu mooy nga jël li nga moom la keneen moom nga bàyyi ko ak moom génération bii ñëw ëllëg tey juddu ëllëg bu ñu dikkee seen jamono mën naa wuute ak sunu jamono kon bu ñu leen tënk farataal ci ñoom ne leen noo leen gën a xam noo leen gën a man lii nu xalaat rek moom ngeen di def daganul dug maandute te lépp lu dul maandute lislaam da koy bañ te lépp lu lislaam bañ man dama koy bañ moo tax dama naan déedéet pour mu leer maa ngi lancé defi bépp sëriñ wala ku jàng lislaam te ne lislaam ànd na ci kaay nu séq taabal ji jàkkaarlook télévision bi àddina di nu seetaan suñu boroom subhaanahu wa boo demee ci sóoratu nisa ci aaya juróom fukk ba ak juróom-ñett yàlla nee na boo demee bay àtte àtte gi nang ko teg ci maandu wa ida xakamtum bayna nas an taxkumu bil adli boo demee ci sóoratu li suñu boroom nee na man mi leen bind moom leen damay digle maandu inna allaha yamuru bil adli wal ixsaan xam nga maandu mooy lan mooy borom droit bu nekk nga bàyyi koog droit am te jël sa droit te yem ca al al adala i'taau kullu zi xaqin xaqahu kon lii nu président bi wax ku ne luy yàq lislaam nekku ci sam gëstu ci lislaam moo xootul waaye tomb fukkeel bi ak juróom lislaam da koy tere ndax dëppoowul ak mandute président dane dafay càmbar constitution révision constitution la wax nun nag mooy man ak képp ko bokk ak man gis-gis ci lislaam danoo gis ne ba ñuy ba ñuy càmbar constitution bi booy càmbar da ngay yokk lu ci waroon a nekk te nekku ci wala nga dindi lu ci nekk te waru ci woon nekk wala nga soppi lu ci nekk te jamono weesu ko mu war a baax ñun dañoo gis ne 1963 kenn déggut woon fii ñuy wax ay borom ñaari tur bay wax ne dañuy takkante tey loolu dégg nañ ko dégg nañ ko ci presse bi yéen journalistes yi yéen koy wax di ko bind parce que ci nit ñi ngeen koy dégge ci mbedd mi ngeen koy déggee gis nañu ko ca ca ca Kaolack am ñu ñu jàpp bàyyiwaat leen ne dañ doon dañ doon def marias ci diggante ñaari góor ak ñaari jigéen ñu ne kon kay bu nu demee ba jamono mel noonu président bi ne day def référendum parce que day xoolaat constitution bi nun ne ko ay président actuelle constitution bii article 17 ba lu tax ngay soppi article 4 romb article 17 xanaa daa am loo nar article 17 bi ci constitution bi fi nekk dañu fa gis ñu bind ca ne le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la commune communauté humaine le mariage rek la wax ñu ne ko président defal le mariage soppi ko modifier ko nga def la mariage entre l'homme et la femme mo euh, et la famille constitue la base naturelle et morale de la communauté humaine lu tax defu ko parce que li ñu gis mooy article 17 ba ñaari gaayee bu ñu takkantee ne dañuy sëy bu ñu leen yóbboo ci yoon mais avocat ba leen di layal bu delloo ci constitution bi dellu ci di set les ko mënal parce que mariage rek lañ lañ fa wax ñu gis na lii lépp nag li ko waral mooy diisoo dafa amul ñun loolu lan jàpp waaye pouvoir bi nee na diisoo am na parce que dafa sosoon genn kuréel gu ñuy tuddee sénéri yi yabal ko ngir mu diisoo nun lu gëstu këru diine yépp gis nañu fa ne sénéri laajul benn këru diine ci mbir moomu ñu gis ne ginnaaw nun waa diine nag kon dañ noo bedd ci réew mi kon lañu def te dëppoowul ak suñu xalaat dëppoowul ak xalaatu suñu borom moo tax dañ naan la déedéet noo bañ voilà loolu laa bëggoon wax ci tënk may wax na képp ku jàng diine ne bu fekkee dafa am article yu ñu ne baax na am na yu ñu ne baax na waaye am na yu bon ma di leen wax ne dafa am benn régal usul yi buy wax ne dar darul mafashit muqaddamun ala jalbil masalih koo xam ne sa njàng kawe na ci lislaam xam nga loolu mooy fexe ba yàq gi bañ a ëgsi moom la jullit bi war a gën a ittewoo ni ñod di njariñ li donc kon nanu taxaw nun ñépp ne déedéet ndax yàq njaboot gi bañ a agsi loolu laa amoon lu may wax loolu laa amoon lu may wax ci wàllu référendum bi leneen leneen la ca topp mooy foofu it dinaa fi leeral lëf mooy man fa ma bokk fa ma bokk membre la man maa ngi nekk membre fondateur ci Rawdu Rayaahiin te nun ñëpp la ñu daje d'accord ci def déclaration commune ba fa Touba mooy nun ñëpp bu njiitu réew mi mënta soppi lii dañuy bañ ba tëdd ba bank ba sun ginnaaw di nag nàcc na déedéet ci wàllu politique bëgg naa leeral tuuti gis naa ci benn site internet mu wax ne maire yi ci département Thiès yépp mara bu Serigne fàllu Fall rek moo ci ne day wax non waaye maire yooyu yëpp dem nañ ànd ak Macky Sall pour wax wey moom mu wax ca site internet ba ne la mara bu ci màggal gi mu organisé woon dey moo ne waxoon na ñëpp di dégg ne feek Macky Sall mu ngi liggéeyal réew mi duma ko mas a ma bëgg a leeral ne waa xanaa réew mi lu ma xam-xam réew mi fi ma gën a xam ci réew mi mooy commune bi ma jiite te samay bokk doyloo ma teg ma ca bopp ba muy njéen sarax ndax ma ki Sall liggéeyal na réew mi duma ci wax waa réew mi gis nañ ko mais sama njéen sarax bi ma jiite laa wax ne 25 mars 2012 ba tey ji ma toog fii di waxtaan ak yéen gisuma benn brique bu président Sall def ci sama commune bi. gisuma wenn xeer wu président Sall teg ci sama commune bi gisuma benn jàppale bu président Sall jàppale sama njaboot gi donte jëloon na engagement yi ci sama kanam mon premier adjoint et la fekke woon na ko ne dina ko def jigéen ñaa ngi ci sama ginnaaw benn 15 joxuñu leen ko te Moustapha Diop mi ngi tasaare. te Moustapha Diop mi ngi tasaare million millions yi un franc duggul njiyeen sarax beneen bi nga xam ne moo ci topp mooy euh, conseil des de décentralisé mais tant de centaine de milliards la programme Thiès wax ko ndax dina ko def wala du ko def waxuma ca waaye li may wax mooy gëstu naa toppatoo càmbar ba gis ne centaine de milliards yooyu ñu programme ci département Thiès ab su naruta dugg njiyeen sarax programme wuñu ko est-ce que loolu mooy liggéeyal Sénégal bu fekkee liggéey mi ngi liggéeyal Sénégal kon xëy na njiyeen sarax daa bokkul ci Sénégal ma ne fa ma nekkoon laa nekk ca la ma nekkoon laa nekk gëmuma kenn gëmuma lenn sama parti mooy lislaam sama njaboot gi ñoom laa gëm li ma yore sama njaboot gi ñoo ma ko jox ku jàppale njiyeen sarax jàppale sama njaboot gi dama lay jàppale ci wàllu politique su fekkee defoo lu juyoog lislaam waaye boo juyoog lislaam nag boo doon indil ay milliards di ko fi defit du ma ànd yow ca loola waaye li lislaam anam gi lislaam daganal daal ku jàppale njéen sarax ba njaboot gi gis na jàpp na nañ leen lëndëm gi nga xam ne ci lañ nekk nga toxal ko yoon yi nga xam ne pënd baa ngi leen di gaañ nga defar ko ma jàppale la c'est tout ku ko deful nag ma jàpp sama njàmbur man opposition du ma jiital pouvoir du ma jënd foofu laa toll euh, fa ma nekkoon laa nekk ma ne ku jàppale njëyeen sarax ci sama njaboot gi ku ma ci jàppale ci ay ay defar ay investissement jàppale ma ci wàllu économique ak sama jigéen ñii lu leer dinaa la jàppale su fekkee ne ku ko deful ma la béy doon dunde ba sax sikkim mu wéy ca ca loolu lay wéy wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa